asalaamaaleykum oh, soxna si na ngeen def man nag fii ma dugg Cheikh dafa mel dañuy waaj dañuy waaj maanaam parce que ñi ngi préparé xanaa ñu def lu gaaw rek euh, salaamaaleykum waa kër gi na ngeen def ah waaw soxna si na def ah waaw ñu bàyyi nga présenté wu man la Astou Sène mhm. waaw ñun nag madame Gaye waaw ñun waa Prestige Thiès doon doxantu ba dugg ci kër gi euh, ñuy laajte li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi nga xam ne depuis bi corona bi duggee ci dëkk bi ba tey dañ fi imposer couvre-feu boo xam ne huit heures ñëpp tëdd waaw loolu yéen nan ngeen koy dundee yéen ah bi nak ñoo ngi ñaan ci ku tedd ki muy suñu borom mi nga xam mo ci man dara yalla nañu ko dàqal comme nim mu won yeneen yi ndax febar bu ne jaar na fi xeyna na fekke wuñ ko me deg nañ sax peste dañ koo dégg wa comme nonu mu jàllee yalla na bi jàllee non mais couvre feu bi yalla bu mu jall nani couvre feu bi yalla bu mu wa ah, wa lu waral loolu yow man dama am samay dom yi jigéen waaw allah. am ci koo xam ne am na xale bu góor bu ko sonal lool. nga ni yow dégguma la nga ni soxna si. Cheikh yaa ngi dégg li xoolal li. couvre-feu bi. yàlla bu mu jàll. non da nga cee ànd wala àndoo ci couvre-feu bi. dama cee ànd 100 pour cent. waa lu tax. ndax damaa yor ay jànq. yor xale bu góor boo xam sonal na ma lool. te it sama boroom kër guddi lay liggéey. boroom kër ban heure lay liggéey. guddi xale bu góor bi heure bu ne dak na ko mu lank dak na ko guddi dak na ko bëccëg mais sa guddi mu ñew xale bu góor bob nu tuddu pour mu xam bopam ah Cheikh gay ah Cheikh gay la tudd. lakkale na lool. dàq bu ne nak dak na ko ko. mais ba couvre-feu bi amé ba tay ma sha allah 8 heures gisatuma ko de ndax 8 heures ñu tëdd. ah yo ah yow couvre bal mu gis couvre-feu bi arrangé na ñu bari dé même xalé yu góor kat yu magi tok nañu ku ne tok na sa kër. ndax couvre-feu bi. ndax couvre-feu bi ay jigen ku ko bëgg boko rombé rombee premier regard ba bëgg nga ko mais défar farata. rek. kon dal koku dal depuis bi ñuy feu ba tay ñewatul ci kër tuma Cheikh gay de Cheikh dé tok na Cheikh tok na dé ah kon yow fu mu nekk nii même bu feebar bi wëree sax da ngaa bëgg couvre-feu bi ñu continuer ko. damaa bëgg continuer ko Macky Sall couvre-feu bi continuer ko ndax sunu njaboot gi toog nanu ñi ngi ensemble wu di toog di dajaloo di waxtaan sunu biir di sottantee xalaat te amul woon yow xale bu góor guddi sa kër moom doo ko du sax reer léegi na reer bi sax du doy ñëppay reer. ah léegi reer bi léegi ñëppay reer. kon maanaam daal du doy. ñi daan reer si anañu. ah ñëppay reer waaye ña daan ñëw eh. toog nañ seeni kër. kon dégg kii li mu wax ma tey seen émission li fi nekk ñuy ànd ak yéen di doxantu moom nee li ko ci gën a neex mooy xale bu góor bi ko sonal di ñëw ci kër gi di seet si doomam bi ñu déclaré couvre-feu bi 8 heures gisatu ko toog na du loolu nga wax de. Cheikh Gueye toog na. ah Cheikh Gueye tudd Cheikh Gueye nag yow kon boo amee jom fii même bu nu annulé couvre-feu bi fii dootoo fi dugg waaw ñu ngi lay jaa soxna si. bu ëpp gee jabar na ñëw takk jaabante bi laay bañ. kon nag loolu leer na léegi dañuy ànd ak yéen di doxantu ba tey dugg ci beneen kër nga ni nga ni yow euh, waaw dañuy dem ci beneen kër yow li nga wax moom leer na nañ ñu bàyyi nga tàggatoo ak lan ngay ñaax askan wi. mooy nañu yokk set gi nañu yokk set gi bu baax téye xale yi comme nag yàlla def na Sénégal moom mënuñoo téye xale yi mais ñu fagaru rek di raxasu sangu waaw di raxas loxo yi fu ñu toll rek man ndox maa ngi eau javel baa ngi nii comme mënumaa téye samay doom waaye ku ñëw dinga nga raxasu nañuy raxasu yokk set gi tey ñaan si yàlla ndax ñaan lañu am de. waaye Cheikh Gueye daal Cheikh Gueye daal na toog. seex seex ah. na toog amu ci de couvre-feu bi dëj na ko. kon rek jeex yow dugg ci beneen kër xool li fi nekk li fi nekk nag mooy coronavirus bi ak nan la ko nit di dundee ak couvre-feu beeg yëpp lépp di actualité Cheikh ñu dem ci feneen. Oh, to oh, me join Oh, Marini, Marini Says, no, Marini, join on Marini, join on Marini, warun on